sëriñ di sàkku sa ndimbal itam ci gën ko yittewoo di ko def di ñaan nga yàgg fi loolu te gën a wér waxtaan rek fi rek foofu lay dal léegi nii defe naa ñëpp ci jotaay bi fekk na ma ko bu dul ñi mujj a ñëw ma leen ko mooy li nga doon wax ci li la sëriñ Saliou wan yàgg nga nu ko wax doo jub ci du ko wax saa yoo nu ko waxee itam mu yees li tax mooy dëgg dëgg mbir ma daane foofa loolu nag kenn mënta xam lépp waaye kenn ku ne kam li nga ci xam loolu yi nga xam ci yàlla loolu yi nga xam ci sa diggante Serigne Saliou woon Serigne Béthio mooy ba mu lee wanee jëmm ya ne la kii kat moom la laajte fi la tekkiwaat ne la kii itam. relativement tagaat baaraamam ba rek ci jëmmi Serigne Saliou ñu ne rek kii nag mooy absolu daal di ne la yow nag am ki ànd ak absolu nga wax lu léegi ni yàgg nañ koo jéem a sax firi kenn ku ci nekk nga waxee ni nga xam ndax firi mi la ko teet yi du du relatif relatif fi ne indiwut ndax li tax andiwul tool yi mooy bi ñu ko fi ñu fi xam nañu ne mooy ku bari doole loolu bari kattan bari may waaye li mu yor ci doole kattan lu mu bari bari bari luñ ko jox la luñ ko defal la luñ ko may la absolu ko lu rëy ko luñ ko jagleel la absolu itam mës ci mun noo xam léppam waaye xam na ni mooy ki nga xam lépp ci moom la moom lépp amul ko fa ci def daa cosaanoo ci moom te lu ay amit ci moom la jógee ku mu teg ñu loxo dara dootu la jàpp kon kooku mooy ki nga xam lépp moom la kooku yi ëmb coow fi coow la nekkoon kay ba mu ba mu coow yi am yëpp mooy kin ne yaay ci am rek ak sëñ moom tuddiwul ko ab sëriñ tuddiwul ko relatif àndul ak ak wax na lu ne ku ne nag di wax sa xalaat léegi yaa ngi fàttali ne nga firé woon ko ni compagnon de l'absolu ngay def nag koo dem wax ko mu borom xam-xam laa da ngaa jéem fiirluwaat ndax l'absolu moom mënta am compagnon te dañuy wax dëgg ndax absolu mooy yàlla mooy ki nga xam ni soxlaalul kenn daal lu mu soxla daa ne ci boppam wasoo xinan bi naf si ñii la ko suñu tuwaay wooye ci lay la boppam ci def kooku nag su dee yittewoo kum àndal ma ngay mottaliku te bu akasee di mottaliku ab suleem deñ na ndax wërta aajowoo lu dul boppam te am na loo am na lu muy jariñ ko mu àndal bu dul njariñ loo mën a gis wéttal la te ab soli daa wéttalam ne wax nga ni ku ne day sànn yooyu wax am na ñoo xam ne firi woon nañu ko ci diggante takk der ak jëmm longueur la lumière def naa noonu hmm. waaye takk der ak jëmm ba tey mënta indi loolu ndax takk der ak jëmm waaye ñu leen takk der lay takk der lay waaye jëmm ji fi ne lu tax leer bala ko ko mënoon a xam naaj bi génn ba garab bi am takk leer xam nga takk leeru garab bu mu indi bu fekkee garab bi am ay meññeet la muy ay doom xam nga meññeeti garab bi dana feeñ te takk leer bi am déet waaye boo bëggoon a dagg meññeet moom li feeñ nga ni naa ko daggee ci takk leer bi dootu jot moom

la rek sax mën a jànge moo tax soo ko waxee mu mel ne day woyof ci ñun waaye bind boobu mooy bind bi gën a xóot ci yi lépp bi yàlla daa daje bi yàlla jaam lott na la ñuy rawantee ci toll ni li nga xam ci lu a lu toll nii ni mu la ci gën rek loolu la ko sëñ bi baax ci seen diggante ndax boo nee jalaaw ne jamaal kamal muy ak mag suñu borom itam jëmmam yëpp ñaari wet yooyu lay wane ca lam na góor di ca feeñal ba ci lim feeñal ba ca fi mu feeñe fi mu toll génn lool moo tax boo demee ci futuhaatul makkiya bu Ibnu Arabi yi day wax ni suñ borom ne ñaari wet yooyu la yokk ndax ñun dañuy ay cantaakoo cantaakoo boo tëbee jëpp ne ko seen da koy jamaan seen sàll way jalaan amul problème waaye ñi xam mbirum yàlla xam taw yi xam luy yàlla xam luy jalaan jamaan fi ne jamono jooja jël na lu gën a diisu móol dóor leen ko seen bopp dañaa moon ñii li ñuy wax ndax ndax xam na lu jalaale jamaan ndax rëyaay looloo tax ma tax daal mu ni imlaar bi nee na ñaari wet yooyu rek la mus di waree Sëñ Tuubaa sax ko ci benn bay jasabanil jaliilu fi ixtiraabi waaye maa xaadanil jamiilu fii turaabi wetug jalaal laa fàtte turaabi waaw wetug jamaal laa wote màggal Ibn Arabi ne watu jalaal watu jamaal naka jekk ci la yàlla yi feeñ dax ne mboolem li ngeen di xam ci yàlla lépp xam-xam bu ci jub jénnut ñaar yooyu benn benn xam-xam ba dal ci jalaal wala benn la ngay xam dal ci jamaal waaye mënoo cee xam lu génn jalaal jeeg jamaal yi ñu ne ko ndax mu ne ndax mboolem feeñ waaye ñi am muy turam yéeg yim feeñal ndax tur bu nekk daa muy feeñal ci yàlla nee na tur wu ci jub di am lu ñuy feeñoo ci jëmmam ji nëbbu tur woo wii benn feeñ nga jëm ci jalaal baa feeñ nga jëm ci jamaal waaye amul tur wu wu wu weesu jalaal jamaal dina ko misaal na ko mu ni na masharul wal quwwatu wal jabratu nee na waaye la ko foofu la yàlla wanee kattanam ji foofu la yàlla wanee dooleem yu bari ji foofu la yàlla wane not ñu not nit ñi fii foofu la yàlla yi wane ñàngaa yi jàllaam bi bu doon koy ñànga mu ne moo tax bari na turu woo dégg jalaal woo al muntahimu kii al jabbaaru jabbaaru moom boo xam ne fii sax da nga daal xam ne mu ñànga la moom dañu de kii nga xam ni kàttan gi mu noté ñépp dana ci seen kaw yaa ngi dégg nee na alhamdulilah ku maado bi ki xam dana dana ni fii daal lu fi waay def dong nga fi amee ku fi def lu baax jot ci ku def lu safaan jot ci al mumitu kii rey gaay te tey reyee noonu nag rey na nit bi doog a te yoonu mbékku ci tooyaay bi léegi rey na ko ngëm bay bëgg am ci moom yaakaar mu dolli ci bunt àddina mu rey ko faalu wut loolu dana rey ci séebu buy tàkk toll na ci am it toll ci am doom mu mu rey yaay ja bàyyi ji dana rey doom ba fa yooyu yëpp muy def te da nga naan yow moom mi koy def moo la ëpp yëmbal waaye jamono jógee na ak muumit jalaal yooyu ngelaw yi tàng yi wëllu ci suuf ak nangam nee na yooyu yëpp yàlla ay yooyu tur yooyu melo Promets-moi. càmmi la facture baa ngi facture li làmmiñ wax a ngi facture li li tànk dox a ngi ñun facture courant ndox rek ñoo sonal moo yàlla bu facture woon yooyu ñun ñëpp xam nga yooyu yooyu raxmaan nag léegi li tax nga xam ne suñu bu kenn bi muy defar nit xam nga defaral ñaari bët ak ñaari nopp ak yeneen hmm. te da ko def gratuit nit nag kenn fii dara ne la ngaa doxal waaye man nga yàgg am dara lu ca fenn damay ab gaañu gaañu bu ndaw lu tax nga xam ne yàlla wuti nag nit nit mi nga xam ne réparé doo nga lay jëm kat bala ngaa dugg ci cabinet bi képp da ngay dagg bii bi nga xam ne mooy tax ñu mën laa consulté moom jot kaal te buñ ko seetee dañ lay bind ordre nag ngërëm jëndi ko te moom nit day defaraat rek yi xaw a yàqoon yi kooku xam ku mënoon a defar complet ku ko facturé doo ko fay waaw loolu rax naa ko nag rahim yooyu moom ma ngay woo jamono am na ci suuf ku ñeewantu ñi ku ñeewantu kii yaa ngi dégg kooku nee na booba ma ngay woo jamaal rek boobu alkariimu du jàdde ki nga xam ne teraangaam li yu ko dara lu dul ndeysaan teral la ne ko am naa fi lu aji jariñi nga xam ni nee na kon ñaari weer yooyu rek lay feeñal addina nag bi mu ko sosee léegi dañuy feeñ mësta ñàkk a dañ di feeñal ñaari wetam yooyu muy lenn ci jalaalam ji ak lenn ci jamaalam ji kenn mësula dikkal yàlla loolu dafa dog ab doge ci jalaal ji lépp nag mësta feeñ damaa bëggul waxtaan Sëriñ Saliou loolu na fi ñu di waxtaan daal jot saa su ne dana am lu mu dogee ci jalaal ji am lu muy dogee ci wetu jamaalam war a feeñ ci yow ñaar yooyu ngay yor looloo tax ci ñaari baat ngay woote ubudullaha wattaquuhu wa atiimuun ñëw leen ngeen jaamu yàlla saragal ko waaye ay waay ñëw leen ngeen yaakaar yàlla te sopp ko lu tax ñuy muy woote ci jaamu yàlla ragal ko mooy yàlla daa yor wetam ko kii ñu te xamoo lus lëf da nga xam ne ragal ko rek a jaar mooy wetu ci daal waaye ñëw leen ngeen sopp ko te yaakaar ko mooy lan wet gi nga xam ni tey um tawan yow dootu def lu dugg yàlla ak sa yaakaar du yokk moo tax sëñ ab jaam diggante xaw fu la nekk ak rajaa xaw fu lu ko indi garaaw rajaa lu ko indi jamaal kenn mës ta ñëw ta waaye nag amu ci kenn koo xam ni lépp bi jalaaw mas naa ci sab loxo ba nga fi ba lépp bi jamaal mas a ci sab loxo ba nga di ko fi kon ak dogi bu toll ni bi nga indil waa jafe loolu gis ñaari tur la am basiir nasiir basiir mooy kiy bégle aw ñañam jëleen bégal ci lan yàllaa ngi xéewal yoo xam ne day wugatul jaamam yàllaa ka bari njariñ yàllaa ka bari yërmande yàlla nangam yàlla nangam yàlla nga kennam loo nit ñi yàlla ngir lan nu bëgg suñ borom loolu mooy basiiram nga soo ca xasee dugg day day dem ba ñëpp dañ naan moom moom ñun ñëpp mucc nañu sa tafe ngir lan lan lay wax ci yàlla sax yàlla ëpp loolu loolooy basiir waaye yonent boo gisul nasiir la nasiir mooy day jiitalaat mooy léeg-léeg mu tuddal yàlla ay yëfam yooyu jotaay ba koy tudde kenn lu noy te dëgg lay ko loolooy jaraama juma moo tax nga dégg inna arsalnaaka saahidan wa mubashiran wa nasira wa daahiyan ila llahi bi ismihi wa siraajan munira wa ma la mooy mooy wetam googu muy wetu jalaalam wetu jabaale Sëriñ Tuubaa mi xam daal kuy tënk rek daal ne waman gësa bëggoon jëli yi ci ku yàlla wan ca wetu jalaalam ja da nga fa gis ay yëf yooyu laa yaqaafu xëyru woo luutu woo ku dul moom da nga xam ne kii rek Si koo xam ni yàlla daa yem rek ci dërëmante alam bi néew ma la day doo mus neexitu jaam yàlla xam nga neexitu jaam yàlla mooy yàlla nangul la ko fay la ci neexal la ci wasit maa ni koo xam ne jalaal ca dong la doon néew ma la doo mus jaamu yàlla de waaye laa yajidu taxmal taxab bala nga koo daj bala nga koo mus sa nonaara tàlli ñereet ndeem ko mus yàlla bu lay jaral jaam gërëm war ko natt xool yi ci wala yi ci bokkul yi yi ci bokk mu war koo seet jenn jaam lay natt kon ñëpp am ko ci daanaka kii bu mën nga sën ba ko jamiinu si li may wax koo xam ne war na la jamaalam ja la mooy benn mbir la. ki ko ràngoo moom la ñu wooyee jamiil comme jamaal boo ko firi nga ne ab taar ab ci moom la ñu tuddee ku taaru kii ngi dégg wala nga ne ak mbaax ki ci moom ñu tuddee ko ku baax kii ki ci moom ak tedd ki ci moom ñu ne ku tedd kii moo tax jamaal ismu la waaye bu nee jamiil ismu faalin la moo tax foo dégg si tubaab naan jamiilu jamaal lay tagg waaye ngi koy taggee ci borom ante miinu yow mi nga xam ne yaay borom taar bu màgg bu tedd bi nga xam ne wala woo juróom sa yërmande sa ñëwal moo tax boo ne jamaa rek lay wax boo ko déggee baatu jëliilu joo mooy màggaay boobu kattan boobu kam nekk moom la moo tudd jëliilu dañuy màgg ci dañu rek mu ne waman gesa doxal jëliilu sëñ kumban jamaa la laa yurihi kooku ñu gis suñ tubaay wax illaa ma lu dul loo xam yasul ruhoo da koy bégloo rek wa yat fa te di ko jariñ rek wala yëpp ruhoo te du ko lor wala yëpp ruhoo te du ko wor nee kum jëflaan jë jamaalam nag foofu nee doo fa gis lu la naqari doo fa gis lu lay lor lan fay saxoo gis mooy lu lay jariñ te doo fa gis lu lay wor yàlla da koy waree nit day waroo ci moom waru moy yàggaa falu kas ak defe ni am nga fa nangam ndegi ëbu ak defe ni doon nga fa nangam ndegi loolu da nga ñëw ba yegg sama li nga doon def lépp nangu nga dara te yaa ngi daale boo fayeku nga ñëw la moom amu fi dara yow fu ci fi dara duma ndax net laa war duma ngir yi nga def yooyu mooy mooy woru da ngi dégg amul ci jamaa ja daal laa yura suu loo xam ni mën naa jural ci àdduna ak am na doji ndax ngir nga ñu mën a wax diwa fi nekkal yàlla lu toll ni kenn nam nekkal yàlla ci ko suuf ndax gaa yi góorlu koy ak lu toll ni li nga yàlla waaye ku nekk dina nit jàpp li nga andi nag ñaari peesewukaay la am lu toll ni li nga andi ci jalaale yàlla ji moo tax ñu ci bàyyi sax lañ jotoon a indi ko néew jalaale yàlla ji mbugal nañ ko seenu xel sax ak dégg ak lu toll li nga indi ci jamaali suñu borom ji moo tax dégg nga Sëriñ Tuubaa sax na sallallahu alayhi wa ne li mu indi ci wetu yàlla ci jalaalam indi ko ci wetu yàlla ci jamaalam amul kenn ku si indi musa indi lu ñuy waaye da xam ne la muy indi la ka foor la sëñ bi dund ko te diglu dama da nga jàpp li ma def la sëñ bi wax ci ma wax yu dani jalaala li ko jiitu sax dani xaasal kamaala faatal rijaal jaasal majaala bil ijtimaay xaasal laxtana alkamaala ak mag lu tax muy faatal rijaala kawe na lu fi mës a jaar li ci moom kawe na rijaal boobu ponkal yi nga xam ne ñoo ñoo fi yoxtona jaar ñu ni ñoo fi nekk yàlla ñoo ngi lay wax ñoo ñee ñëpp ay dogit nañ woon ci moom moo tax faata rijaal mu ni jaasal ma jaada jiggi na les ma mooy kenn ku ci nekk daa am fan la yemale moom nag fan la yemale gaa yi moom dafa dafa moom dafa jéggi biir ihtimaa yi ci tànn ko yàlla ihtimaa boobu ak tànn lay firi ñu ne ko waaw kamaal gi lu ko andi mu ni naa la jalaala ngir daa andi ci jamaal ji naa la jamaala andi bi tam jamaal ji waaye jalaal ji mu jot a andi ak jamaal ji mu jot a andi mim man la nga jóge ca nga xam ne taxaalaa kawe na lépp kon am na leneen lu kawe leneen la kawe ca la dogee yiñ ca dog dëggu si tubaab yi ndax nit lu kawe loolu mu jëlee jalaal ma jamaal rabbi sama yi looloo moom borom asmaan yi mi mi man jii si wax min man naa la jalaala andi na jalaal naa la jamaala andi na jamaal waaye jalaalam ak jamaalam min man ma nga tuddee ca nga xam ne lépp kooku ya rabbi samay loolu li muy réeréer ci li mu feeñal daa tolluwut ak bi Sëñ Tuubaa feeñ yàlla continuité la mooy day day wéyal lu jot feeñ suy feeñaat day boole la feeñoon mbëkkalante ko toxtalante ko ak lii bëgg a feeñ tamasta feeñ ne ñu mbooloo mu ñëw loolay tax la ko jiitu doo ko man ni du ca ndax moo ma waaye li koy mujj loola nag dara du doon moom lenn la ñuy doon waaye ci biir bi doon misaal moom naa leen ko ci jàmm gi dama ñu leen loolu yomb naa wax nit ñi ndax boo jëloon mbir boo jëloon géej gi misaale ko mbir mi ku ne xam na ni ku tànkoon potum ndox ci géej gi teg ko fii tànku siwam ndox teg fii siwam ndox bu jógee ci géej gi ak potum ndox bu jógee ci géej gi lenn la moom man ñoo bokk principe bi ñoo bokk cosaan boo naanoon ci ndox mi mu saf la li nga xam ni ku naan ci géej mu saf boo naanal ci siwoon mu def mu saf la li nga xam ne boo naan ci géej mu saf la ko boo sën moo woon ci xob bi mu def la li nga xam ne bu sën moo ci doxum géej mu def la ko boo sën moo ci siwo bi noonu kon ñoom ñaar ñëpp lenn la doon waaye kenn ku ne xam na ni siwo bi du pat bi ndax li siwo ndox man patu ndox lañu siwo ndox li mu li doole ji man siwo ndox mën naa sangu li am na yu mën a fóot patu ndox mën ko sangu day dégg waaye sëñ Tuubaa rek bi mu feeñee feeñal na ci jalaal bi yàlla ak jamaalam bi loolu boole la jotoon a feeñ masis koo gi ci ku dul sëriñ waaye tax mu mu wax ni lépp feeñ na man ci diggante jalaal ak jamaal daanaka yàlla mës a feeñ te feeñul Touba li ci indi jafe-jafe ci nit ñi ba fi mu toll nii ñun murid yi ñu ci bari mën ñu juboo ci suñuy wax kee day wax fii kii génn fële wet kee wax fële kii génn fële wet lu ko indi mooy ñàkk xàmmee gi nekk ci biir Sëñ Touba dal na Sëñ Touba daa am ñeenti inni te benn bokk borom jëmmi Sëñ Touba juróomi wet la taxawee juróom ñu ngi def la juróomi bi yi ci genn wet bu bokk ak moroomam te bu ci nekk yi dana fay wax di fa def ab liggéey te wet googee lam fay wax di ko fa def su ca figalee ba suubu di geneen wet dafa def ak a wax wax ji boo ko tegee ca wax jee mu weddi ko te wet dañ ci am na wetam gu tudd Ahmadu Bamba am na wetam gu tudd Abdullahi am na tam bu tudd xadiimu rasul ñett am na tam am na tam bu tudd saali dama lay wax juróom bu garaaw day am ci biir ñun ñi gëm Sëriñ Tuubaa loolu laa bëgg ñu wax ci si lëf ba nit ñi xàmmee Ahmadou Bamba mooy ki naan doomi maam moo ëpp sëli ak soxna jaar ñu tuddee ko wëlleerew baayam Ahmadou Bamba Sall Ahmadou Bamba Sall ak Mamour ëpp sëli noo àndandoo woon di jàng ba nuy jugee fan doon jànge kooka sax tijaan la mu xam dam la ca ca tijaan la moom Ahmadou Bamba Sall ba nuy jugee fan doon jànge nu fasalante ay kóllëre kii ne ko kóllëre gi ñu ko dëgërale soo amee doom nga tudd ma ko kii ne ko su ma amee doom nga tudd ma ko am na ko ne am na ñu ne sax dale ko sa ñaareelu doom nga tudd ma ko looloo tax ko Mamour Diallo mu tudd ko Sëriñ Tuubaa bi sëriñ bi ganee jamono mu tudd ko Ahmadou Bamba Sall Ahmadou Bamba moomu nag day am tur di am sant di am kii ñu tudde di am kii ñu tudde baay am dëkk bu muy juddoo moo tax ba tey boo demee Thion Mouride am na ci waxtaan yoo xam ne génn guñ foofu xaritam rek dañuy wax sëñ tubaab yi xarit ak maaram askan yu mbokk askan woo yàlla da ko teel a ay dégg maam maaram nangam musuloon lu baax la ñuy wax nag waaye ñoom ñooñu ma waxuma sax ci sëñ tubaab yi ñoom déparé gun amul bàmm amul ñu ko dalal bi la dan na la dem ko amul nekk ci biir daaree baa ñu di tëralal gaay jéeri yi génn ku doon Ahmadou Bamba yaa ngi dégg de loolu ab départ Sëriñ Tuubaa googu mu naan min Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Habiballah daane signé noonu signature boobu jamono ahmadou bamba dox daa wax doomi mouhamed ji mouhamed jur mohamed jur abiballay jur ko mi ngi waxi maam jamono yo daa wax na masaayixi abdou xaadir jiilaani wa saasani wa ahmada tiijaan man day samay sëriñ mooy abdou xaadir jiilaani la ahmadou bamba moo jëli wér de ma wax la ko rek tey ñu bàyyi dañu naan sëñ tubaa jël wér de xaalis sëñ tubaa jël wér de xaalis ahmadou bamba ko jël عمرهم لا يخرجون سيدي بعدمي جال كبير أهم الصمار من جليل ñeneen wirdu xaaja rek wirdu tiijaan ak wirdu sal sëriñ mu naan ñii sama sëriñ Ahmadu Bamba la ah ba tey moo tax gisoo bi mu naan fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wala nihida sawa ini li ahmada tiijaan فعدت حول شرابهما من الأقدام إذ كلهم ورد على سواء مثلا بسين bi wax noonu amul baa baa xamul xamul loolu ba mu fukki at ak ñaar ci sahir la làq duusa di wax wax yu wér ku attee foofu yoon wi xamoo yoon bun juum du ma yàgg foofu ahmadu jommi tali amee muy ci Serigne Sall laa la bëgg a wax loolu nag du ma ma tëbanta baala ko doo ko dégg ma bëgg laa wax ni fi njuumte ne mooy daawale woon ci Serigne Touba bi mu jógee ci Ahmad Bamba mu ñëw ci Abdoulaye Abdoulaye mooy kan jaamu yàlla bi tayaqanu bi Abdullahi ak xabrim rasul ñaari liggéey la yooyu Sëñ Tuubaa defandoowu ko waaye nag ki ko ko doon defloo da koo sàkkoondoo ku ko doon defloo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Sëñ Tuubaa xoolal raam rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdallahi dani raama sàkku ku sàkku rasulullahi yonentu yàlla fu mu sàkkoo min ilaahi ci yàlla la sàkk Sëñ Tuubaa ñaar la fa ñaar ñaar yooyu ba nag bala mu ne kaw nii sama nekk xadiima boo di xadiimam waxabtallaahi tey jaamu yàlla yonent bi sàkkul xadiim bi rek dañu yàlla li may sàkku mooy kii la doon abdullahi ak xadiim rasul ngi defal ma li ma bëgg kon kaay nekk abdullahi ak xadiim rasul bokkut ak li mu nekk kaay nekk ki ñu koy wax na ba noppi am lu nekk ñu ne ko kaay nekk Abdullahi nag ak Xaadimu Rasuul kon dañ ko koo doon loo waaye boobu dëgg lañ leer na barke Sëriñ Tuba bokkut wax Abdullahi ji aatifinoo maxtuuf la na Abdullahi xadima kooku mu daaful ilayhi ji moo wa xaatifun wa maxtuuf day topp lim maxtuuf mooy wax Abdullahi boo bëggee xam ni boo bëggee xam ni xaj yi na ak Abdallah ñoo bokk lu ñuy dox boo bëggee xam ne ñoo bokk lu ñuy dox day xool masque yi xaj yi ma wax Abdal gaa yi da ma bool bi ak setala gi gaa ma bool bi ak setala gi kon bool bi bool la satala gi satala la ak yow mi koy indi muy ñam ci yow mi koy indi doo bool bi doo satala gi waaye dañ ne la ñëwal ngir indi bool beeg satala gi kon boo joxee bool beeg satala gi borom day des yow kon Abdoulaye Xadim Rasul boo ko teg sëriñ jëlalee ci Ahmadou Bamba مفهوم حق الله لولا انك يريد انك عيب حق الله لون الله am na wala kayru xadim rasul ñaar yooyu mënta ñàkk ci li yonente bi bëgg mu liggéeyal ko lu tax mooy yonente bee moom lislaam diine la joo xam ni maam aadama ba yonente bi jënd diine ji wàcc la mag na al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum lislaam diina inna diina hinda laa lislaam te lislaam jooju yi daa daa am aw aw tëralin julli woor natt asaka ak màkk yooyee ponk yi ci gën a fës yaa ngi dégg yeneen ak yeneen yi nga xam ne mooy mbiri diine ñëpp xam nañ ko te diine bi mooy diine yi nga xam ne moo dajale diine yi ñëpp te jamono jii moo tax xaadimu rasul ak xaadimu rasul ba tey ngeen àll ko de xaadimu rasul mooy ku defal loo man te sa mooy loo xaadimu rasul mooy ku defal loo mën te ñàkk te mënuloo ko sa bopp ñaari bokkul de xaadim sëñ Tuubaa am na ñu fekkoon mu doon ko Anas ibnu Maalik daa tuddoon Xaadimu Rasuul ndax daan liggéey kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defar kër gi euh, euh, moo tax arab di wax ba tey ki ne kër gi di liggéey ñu gën koo xam ci boole ci yooyu xaadim lañ koy waaye sëñ Tuubaa li doon ku ko mos a xeeñ amul xaadim nag xaadim waa ñi liggéeyloo ci kër gi ki koy liggéeyloo li koy liggéeyloo mënal na ko boppam ak jotam ak ko muy xayra ak personnalité ak yeneen ak mu ne ci yeneen kooka wutu ko xadim nag mooy ki lay defal loo mënalul sa bopp te mënoo ko ñàkk ñaari bopp yi xanaa la si talaba kaw ni al xadim la salaama sil bariyatil xadim nee na léegi islam li waral Abdoulaye rek mooy islam jooju ay julli ak woor nag yooyu moo tudde xibaadaat mooy ay jaamu yàlla xibaadaat nag kan moo ko war def ab jaamu te ibaadaat yooyu ñu war a jaamoo yàlla ibaadaat yàqu-yàqu am na boo xam ne buñ ko seetaanee adduna bi si tool bi ñoo daa fekk l'islam bi yàqu noo ko am na fu mu ne damaa fekk mu ràpp am fu mu fekk mu dee dekkil laa ko def te yëf yi yërënti nii te ngir nga dekki ak jaamu yàlla faaw nga sol mbubbum jaamu yàlla waaw ndax defaraat julli faaw nga julli wala julli ba julli baaxa defaraat koor defaraat asaka ak nak bo noppé gorel ko bam baax na wal islam jël leen lu way defé ci légui baax na waye lo defé ci rek ta am lu bëgg señ tuwa yalla bëgg ko lolo ko waral mu jaar ci abdoulaye abdoulaye jogi ne jamono ji nguy nit ñi day wax ay wax diko bind di wax di wane ak njaamam di dem yalla ngir lan ni yalla bëgg ko ko ni jaamoon natt na ko ci andal ba xam ni ëpp do ko man mu solal ko tenue paye eh, maître bi jàngale Cissé bu dugg see xëy si ci classe bi maître boobu yi liñ jàng ndax xam-xamu Cissé nag la eh, man man naa am sax weesu na université waaye bu dugg see ci école classe Cissé la jëm gis nga bu fa demee leçon yi waa Cissé la fay wax bu ko dégg muy wax leçon yi waa ba nga defee ni xam-xam waa Cissé dong la yor daa fekk ne ña muy waxal loolaa jaarul ci ñoom. waaye bu ko jël woon foofu yóbbu ko université mu doon professeur boo ko fekk dana moo xanaa kii du kee fekk kenn kii ci lay yem di ci fanaan waaw sëñ Tuubaa Abdoulaye nga xam ni boo taxee foofu jàll léegi ñu xool Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa bi muy nekk Ahmadou Bamba nekk sëñ Tuubaa nga xam jëmugul ci géej gi lay bind ma dama foo séen di wax naan waccal xayaat yi wa mamaat yi bisu na yàlla defal sama dund ak sama dee mu jeex ci sunna xam nga wane na ni kon day dee te bi ma yegsee ci sëriñ bi danaan lan tan xun yi muxadamaat mooy man di ma sutura sax bay dee kenn kee wax ñaari wax yëpp boo xam ne wul wax ju jëm day mel ni kii day wax ñoo di ba moom di wax naan damay dee damaa ngi naan dee gi yàlla naa ko dee gi sunna ñëwaat naan suuf dara sax du ma ko def bay dee te kenn koy wax ko wax waaye nit ñi duñ teey rek te jéem a xàmmee moo tax nanu bàyyi ku ñu wax lu nu nu ñu ma ngay waxal Sëñ lu nangam Sëñ Tuubaa wax nangam waaye la wax est ce que xam nga fu mu ko waxee fu mu ko jëmale yàlla may ko ak islam nasaxa lil islaam hinda turbati lakal jasaa'iri muniiru turbati moo tax Sëñ Tuubaa nee na jàng alxuraan baax na mokkal ko baax ko baax na waaye bi ma feeñee nee na jàng alxuraan bi ko jëfe taxatut a baax hmm, waa déedéet suñu tool yi doon xaaf taxatut a baax ñu ko moo si Tuubaa nu ñuy baaxee ci léegi mu ni ci rek la dee ci baaxee léegi malakani l hurufa wal alfaasa wa biye yëf bahrahu muftahsan loolu sëñ bi wax ma ne que nii man nii la may alxuroofa arafi alquran wal alfaasa ak baat yi waaye nee na man leen wobiyee ci man nii képp yéex jii la dee fi jindikoo la dee fi jube la dee fi baaxe bahrahu muftahsan ginnaaw xaafis yi bin mokkale ba tudd ay xaafis seen xaafis nga taxatu leen a baax ah mu dëgg la dee fi baaxe maa la ko wax de yaa ngi dégg Abdoulaye ñoom dama ci taxaw waaye bu ma ci taxawal mën naa laa yoo xam ne gis nga koo xam ni ci yooyu lay faral di ci yendu léeg nga gis ko naan mooy waxtaani Sëñ Tuubaa ba nga ko xamee ba tey ñeent fukki at ak ñeent ma nga ca àggugul ci Sëñ Tuubaa mu mus caa wax billaahi wallahi taala te jagaraan cëy ña koy naw fekk moom mus na tudd Sëñ Tuubaa ñii ci Ahmadu Bamba lañ yem ñii ci Abdoulaye lañ yem ñi ci gën a xaw a ñoqal ci Xaadimu Rasuul xadimu rasul mooy liggéey bi nga xam ni daf koy liggéeyal yonente bi ci jëmmi yonente bi ndax yonente bi daa am ay wetam yu ruqee ruqee ko jur nit ñi gisuñ ko xàmmeewuñ ko bëgg ko def seen morom wax ku jub naan ñu def la ñu noonu dañu dégg war ma jën ko war a jox xamuñu ko te si tubaab rek ko xam moo tax wax na ci nuur daal ne ko alal la si bi xidmati ubdiihu laa xit xadimu rasul gi ma doon ci yow mooy feeñal mag gi nekk ci yow mag gi foofu lay sullee yëfum ya balan ay man sannak annaka tahajil basara wal jinna wal malak lan yu basara yaa ngi dégg man sanna anna al muntaxa mislul wara fa huwa xumrun xalbuhu ma nuwira nit yooyu mooy lan képp ku njortu ne nit la ba jinne la ba malaayika la xuma kan waaye yow moom doo bét la nga mën xiyam waxu si ba waxu ko ko wax ku ko jot la wax njot njot la wax leen de njot lu ko génne sa xel la ndiglu li siñ man tan ki di ko wër di wax sax nag fam tajaa yi nag weesu na njot dañ koy wax man san na ku njot rek ne an al muntaha ki may tag muy al muntaha ku njot ne misul wa mom min dif yeya ñaari tawata la dal ñaari taw yi nak ñu ñaari fa nek ji neena xel la dof nga yow ñu ne ko tawatu ñaareel ji nag mu ne tawatu xol la sab xol amul leer bu yàqu waxal bu mu lu wii la ku ñaari tawat yooyu dal yow jëruti yeggal waa di di di di ko génne di kañ nga jiitu mu ne bi tax di mil xam ni yow bi yàlla jiitu rek nga jiitu boobu nit yi mooy bii feeñal li yonent bi moo tax déggoo nubbu watuhu xam balaa yaa xat liñ galat waaye foofu nag ak gën cee ñaanal mooy ñëpp dañu wax dëgg si ma nas li mu doon nubbu wam ji yonentam ji ngeen di wax a def dama li mu doon feeñ na ba ma gis ko man ndax du ñëpp ko gis si mbir la yàgg xam lan balaa yaa te boobu ni ñu def amul daa ne mu doon nag mu feeñ ma teg ci sama bët te mi a amul wala kin nahaa galat loola daa daa tiim an sihiri wayukaay war nas mi ak nofukaay moo tax kalima du ko kal ak la ñu mën way baax na waaye nag ma xam ci moom daal tiim way loolu la wax sikru seen way yi de d'accord nañu baax na waaye nag dañuy wala tiim ne daal li may wax jàll daal tiim an sihiri ay way war nas loolu maa ko xam xat yi googu nag ñu ñi ñi gën a naw sax fi ci ñuy jàpp ne ñooy waxtaan ni Serigne Touba ci xadim lan ne moo tax léeg nga gis ñu ñu daal ci kaw kenn te la leen koy teg mooy xamul ne ko ka la muy wax dëgg la xam ne mooy xadim mooy soo ji ci biir xadim yi sax am na ca la leen feeñal ndax juróom benn juróom laa waxoon waaye juróom benn la ndax dafa def dafa def Ahmadou Bamba def Abdoulaye def Xaadimu Rasuul def Ahmadou doo ko def sëriñ bi doo ko def sëriñ Saliou ak bii ngi tudd ki koy liggéeyal mu dem ba yàgg mu weesu ki koy defal daan ne maay moom muy Ahmadou daal di taxaw nag ci doon ko moom yëngu waaye maa ngi ko doone sax ci wetam nga gën a ruqee te gën a nëbb te gën a feeñ waaye sëñ Tuubaa sax xaqiqatul Muhammad yaa xaqiqatul Ahmad yëpp yàlla da cee boole waale tànkaat te fa mu tànkee woon ñaar yow ya roof ca waaye loolu fii ñu ko bimu naan Ahmad yonent bi ñaari wet xaqiqatul Muhammad yee sax fii ñu teg ndax xaju fi lépp xaju fi di daaw su xurey nii moo waxoon ni man la yàlla wanoon ba mu ne juróom-ñaar fukki junniy kiiraay bu ma ci bu loolu benn ma seey ni kawar di seey bu liggéey ci kawar bu liggéey ci xal sëñ Daaw moom gis na lu saxaaba yi gisul waaye nag sëñ Tuubaa ci nga xam ne su jamono jamono amoon ngànt nekk di di di am dara li mu am daal di beru yéen tamit ba tàgg naan ma jamono te woon moom du beru day ñëw jëbal lu ñëpp walaw adraka nii awasul xare nii la raax bu fekkoon sama jamono du beru day ñëw jébbalu dooru dong la ñuy Ibra Fall dooru dong la si mënumbe daal ni walaw kuntu kaasiban la axsallaahu al yow wala xattal bii lii may wax nag ku ci ak neen nekkoon yàlla gàttal na léegi waaye maa ngi leen yégal ni la tax awasu xore bi xaqiqatu Muhammad yi kooku lu wan ko te lañ ko joxoon daa jëloon dul rek man rek ndax ba ñëwoon ko man nag sama bamba lay du ber waaye nag seen tubaab day weesu Ahmadu gi daal ñëw ne ci sëriñ bi ok ku ko dogee ci sëriñ bi tàmbali ngaa dugg rek sëriñ Tuubaa bi bi foofu tur wu la ko mag ñi jox waaw foofu ngay dégg ñi naan ku tedd ki ñi naan borom bokku xam yi borom jàmm bi suñu yaakaar yi déeg ëllëg ndimbalaa kon bi xett laa kon bi waa ji kooki sang bi sëñ Bamba ku tedd gi te ndeysaan am sunu yàlla ji am côté yooyu yëpp ngay dégg sëriñ bi ah booba ku ne jox mi nga wut sa tur bopp mbirum yàlla bi si mbiru bàyyi ma ne loolu am léeg-léeg ñi naan ki kenn xamul yaakaari jàll foofu nag mooy sëriñ bii foofu la tàmbalee na feeñal moom bokkul ak Abdoulaye Abdoulaye daa mën a feeñal ak mooy xanaa xam nga Abdoulaye amul doole feeñal ak mooy Abdoulaye yàlla la buy jaamu yàlla jaamu yàlla bu jaamu war nan lay dooleel nit ci ñaar wax ma ko loi bi tënk la ngay xotti loi daa mën a déedéet fii gaa ñu tënku ci Abdoulaye mënoo wax rek ah ab jaam jaamoo ko ndax waaye doo julli doo war doo def doo añ màkk xal la yoon wu fa jaar gën a gaaw jaam Abdoulaye mënu nëbbeg waay waay know you did it. Hmm? tali waaye ma ni loolu laa doon leeral ci ni ci sëriñ bi loola ñuy ak murit sëriñ Tuubaa bi bëgg a feeñal ak murit xaadimatul mataaf la xaadimatul mataaf mooy xasida yi jëm tudde xaadimatul mataaf mooy daawartu xam mooy xaadimat xam nga ni mataaf kii jéegu di feeñal di jéegu di dox di wër moom ngi dox parcours di ko def bali fii nu toll nag jéegu yi ma doon feeñal jéegu bu mujj baa ngi étape étape final fo loolu la tuddee jaawul xaadimatul mataaf mooy lan boobaag léegi ay batale rek jot ay batale jot na nag ma dajji rek sama keesi bopp na batale yi mat ah Ahmadu Bamba batale la mbuusum Adama la sëñ Tuubaa doon na leen doon xabatullaaha salaasa mi'ati alfi aamin qabla ilhaami Adama wa Hawaa wala yow naa yàlla ñetti téeméeri junni ak yàlla ma jaamu gi doy na goreel ma toog ci njoowaan ñetti téeméer junni ak ci ati yàlla te sax buur maam aadama li sëñ Tuubaa magi aadama daa bëri déggul li ma ko si message adduna ak seytaane xam nga tax mënaluñ ma dara mu ne ko dee leen tàkke ba dañ leen a sàkkee sama kanam te adduna moomu ak seytaane ñoom ak aadama ak aadama di mu déglu yow seytaane naa nga mu junni at la jaamu di jëkkut ak kenn jaamu nu koy sàcc aadama ci wetam te duñ koy bëgg a sàcc moom lañ ko njëkk a informé am na ku ñuy bëgg a sàcc dana nan ki ki ki nar a weddi du laa wutal yedd wi kon tey daal li mag aadama daa bay far ba weddi nga ñëwee dal foofu la sëñ Tuubaa ni moo tax naagu ab taalibe du naagu ndax booba jàpp na ni moom weesu na fu ngëmam di mu wutu yàq di waajal ki ngëmam war a yàqu nee na lu tee mu tiit ci boppam moo liggéey bul ci xalaat kenn xalaat sa bopp ak bu sëñ bi waxee dara soññee ba lii mën na jiw laa tiital tiital yow bul tiitalu ñu kenn léeg-léeg suñu nag mbir a ngi ñëw de tey mbir mu bu yegg see ku saw fit dëgërul kun téewut da kun téewut da nga rëcc wala ku gaaw a tiit sa fit dana dem loolu bu ko suñu baax ba fa nekk naa si mën na jiw jiw daal laa xam ne jiw daal tiital yow loxo may la doon aadama ma nga ah, ah, ah def sa waaye ma nga daw la iblis yàlla day am na luy bëgg a ñëw ba ñëwee am na kuy rëcc ndax di saay ba au lieu que ni mën na maa dal mu sakku ndimbalu yàlla mu wutu naan kenn nar a daw daal ku toll ni yàlla di bëgg a defal tur nii bëgg ñii di daw wala mën bëgg wax foofu mooy iblis kon daa mag àndama lu bëree bëri te suñ ci waxee nag iblis moom ci sama kanam lañ ko bindee waaye ñu dul kon muusul nit kooku nag di di aadama suñ ci waxee bëgg a ñëw ci àdduna moo tax aadamaa ko ba tane muusul nitam gi ne ko def ci li nga yor boo yóbbu ko kon li ñuy wax tax mu bàmb lépp ba tey jàmbur la waaye suñu tubaab du nit yow nit te doo jinne te doo malaika te doo kaayinaat illahi te doo Muusa boo xamoon li seen Muusa ka def foofu ah. ci way ci tafriix loolu lañ tuddee tafriix waaw juróomi réer ci ñetti nit mu ni sama juróom réer na waaye juróomi nag dama leen xamal génn génn ñett daal ne gees seen xaalis daan ñoo yow nag moom du yow ñëw ci yàgg bi nag yaa eh, du yow mu des jàng ma ni nii loolu mooy lan mooy yow yooyu la def yi am yëpp ba mu des yàlla mu ne ko yow a xam mooy yii moom doo ci benn dafa aw sëñ am moom doo te yàlla des loolu dafa def yow doo nit te doo kaa inaat te doo Moussa Ka yooyu yoo fi ne rek ak mu ne ko yooyu moom doo kon doon batare ci Amadou bi Amadou Bamba ji Abdoulaye batare jàmbur la yonent bi ne ko kaay doon Abdoulaye ngir liggéeyal ma ci lu jaamu baaxaate ba ku ne mën a jaam Xaadimu Rasuul batale la yonent bi ne ko kaay doon Xaadimu Rasuul ngir lan wane ma man ndax réer nañ ma ñu xam ne man batare jàmbur la kañ Amadou Diop Dione sax ak badal la la booba day feeñal ni kii yilif alxuraan yilif sunna moom lislaam ji mooma du fi jug booba day wane ne leer rasulullaay du fi jug batale gi mooy day saxalaat ne leer gànn mu daal nag batale gi mat na ma ma tàggi sama kees yi ko foofu la sëriñ bi doo ko tàmbalee moo tax xaatimatu ma taaf bii ma la wax muy muy muy jaawut boobu nga xam ci la waxee léegi jéegu ma mujj étape bu mujj bi feeñal sama yëf jot na fa la gën a inal la si minal ilaahi rus xaaba xanil kaw ni ba fii fusdu da ngay xool mbir mu ne fam ko wax fii nu toll teñ me nag maa ngi bëgg a yulli bagage yooyu addina ni ma koy yullee gan la fii doon gan la ci àddina bagage yi di bëgg a génn bët musu ca dégg nopp musu ko dégg xel musu koo xalaat xool mos sa yëngu te yan bi ci yu ni yëngal ko yii maa ngi leen di yëgal ne waxuma yéen waaye ña gën a rëy ñoo ciy njëkk a jox na kan la ci na ah, lool foofu la ak ak murit am bi doole yi baax ah. ah, waaye dalal gars yi neen ku jàng ko ko jàngal moom affaire bi moom li koy yàq mooy jéem a jàng waaw yii mbir li bëgg lu koy yàq mooy jéem ku ci war a jàng yàq am na koo xam ne bi mu jébbalu si bi mu yegg see Alfiya ibnu Malik bi nga xam ne moo gën a fort ci jàngkat yi nga xam ne grammaire ci arab ci gën a sori la dafa jàng jeexal fiqi ak Alfiya da sara àndaale ko ne Sëñ Tuubaa ak Sëñ Tuubaa ne ana noon def mu ne ko bari xam ba Alfiya gis nga maa ko saraawaat Sëñ Tuubaa ne ñokket di bàyyi ko fa bi sëriñ bi ne ñokket di bàyyi ko xamatul benn ni boo ko defoon ci këll ci njàng ma xamatuma dara mais nees tuuti ci mën lu wax ak moom ma naan ko balay wax ba nee na ma ñu topp ci mën lu mees sànni samay téere ma nit waaw ndax mbir mi nee na jéem a jàng ko yàq moo tax mu ne ko ku fi njàng indi woon teel koo wax mu yewee koo xam na nag ngeen bëgg a feeñal it teel na ko na jug ànd ak amut laaj nag amut nu mu demee topp la rek xabaam lii fi da moom daa seetlu amul ci amul c'est-à-dire amul pourquoi déedéet amul comment dañ koo topp rek moo tax dégg naa am aére yu rëy seen tubaab ko rey noonu ñu reyee seen ko mën ba ko rey

tàmbalee ci Ahmadu Bamba ba ci xat bi muy suuf ak bàyyi xel muy farfe sëñ Tuubaa min ñoo ne ko kaay rek kaay réparé l'islam bu ñëwoon ne na ca ñuux bàyyi faal fii ne ko ñi ngi débrouillé débrouillé ngay baaxul gaa yi dafa ko nga ñëw far andi ko débrouillé wul far ah liggéey bi di yàqu nañ def nànk lu ne ak fomm yu dugg Abdoulaye Xaadimu Rasuul nan nga fiy dugal ak Baay Faal yooyu ak ah, dégg li ma la wax ci sëriñ bi la la dugg loolu foofu la loolu yi moo tax gisoo tuddewu ko baabul islam sëñ bi yàq néew ko baabu Abdoulaye du baabu Xaadimu Rasuul dana ko baabul mu ñuy jiir

Tuubaa Munkar Nakiir xamu ko nangama loolu foo koy wax ci lislaam Munkar Nakiir nga xam ni xam-xam bi leen yàlla jox ci ku faatu Sëñ Tuubaa am na fu muy bind te kenn di koy bind de déglu li ma lay wax jamono jooju xam nga kuy bind Abdoulaye daan ne Munkar Nakiir mi nga xam kër gén gën biir géej ga mu seey biir gën wa nga xam ne kenn gisul fu mu ko suuree bul werante ni Munkar Nakiir danañ ko laaj daan ne bul werante ni Munkar Nakiir danañ ko laaj daan ne bul werante ni ka gay nekk ba mu resté da ngay dégg booba moom mooy bind de ñëw fii la taxu daan ni eh tuubu suufus Tuuba Daaru Salaam Njaareem Munkar Nakiir xamul ah fooy waxee loolu ki mën a xam ka resté biiru jën ak biiru jën ñu mu sori ci géej àddina xam ne ni xam ne Sénégal gën a xam jàpp nga man fee sàkk suuf su ump la ñëw doole yi ba am na dee man si tali woo gën a gaaw ko liggu man foo nekk def naa ko muy tubaab transfert bi daal ko jaamu yàlla kon doo lay bàmba ji xàmmeewul am njàng xàmmeewul askan sañ-sañ naa ne aussi li moom jëf yi yonente na moom ma tuddal ay saxaaba waaye maa ummi daal yi mi yi ba tey daa may sëppi araf yi ñoom ñoo yéri awuma jot suuma daaje këy ji laa wax ñoo man ñi di tudd ci jooju jamono foofu la tax booba nappaaje na ñëpp booba sëñ bi moo nekk ci kaw ñëpp naan wa waxab li yàlla xilma nag oh, oh. asahiha wala sëriñ bi mooy sax xamoo ki nga xam ni xam na dara ci dooley Bàmba ji kooku lu ñu fi ko sax déggoo li mbax liggéey sabab liggéey la may matara sabab liggéey man sëriñ bi toj jamono ci sama sëriñ liggéey boobu laa wax ne fi fi lii may doon loolu lay matal moo tax daaw ko gis buy tudd sax ñu bàyyi ay yële yii moo tudd gaa yi xóotal waay. xóotal. waaw xoolal sëñ Saliou ba nga xam ay wax moo lay leeralal li sëñ Tuubaa yi wax ci moom. xoolal bi mu bi mu feeñee gàtt la waaye déggoo sëñ Saliou li mu def balaa projet bi la laaj xam nga dama ñëw ne dañuy jël feeñ. la Serigne Touba moom mu sàkku mu ne ma tàmbalee fam yow di ñox bale ma yem fenn foofu la coow li ne doole doole jooju si tuwaa yor sàkku Sëriñ mu wàcc ci moom sant ak jëriñ ñemee jeexal yëf yi rek ku ko ñem wàccum lu yàlla ak yeneen ci ñëwu ko jeexal na ku fi ne ba toj sa jamono ba say gars yi gëm la ba def na yow dong la yàlla naa ne eh bu fi bàyyi coow defal déclaration ne am na keneen ku moo lay man yeneen ci yëpp la ko def loo kii déclaré na am na ku ñëw ne na ko ma la kooku ñu wut nañ jeexal rasulullahi salaa salaam moo nu wax dëkkug si Tuubaa Tuubaa li man balax ñëpp déglu mi attra badrat wan nañu ne kon jeexu du tuddug yonent waaye ma ngay ñëw de bu dikkee mooy ñoqali yonent yi Sëriñ Tuubaa nu wan ni Sëriñ Saaliw ngi ñëw Sëriñ Saaliw wuxul kenn ngi ñëw dañ yéegi jeex dara desatul du waaw kay nag foofu la problème bi ne te xam nga ni Cheikh Béthio élément bu jëm agsi naa nag li ma la bëggoon am gis nga doole ji doole yi bam nañu lu sax seen bedd du du manifestation du tanasula déedéet du tajal yi li siñ tubaab doon tax ca biir loola la siñ la jógee te doon ca li ci gën a biiru Дядя. waaw loolu foofu la sew sew bi ne. fan la sew sew bi ne. ay dëkk dëkk jàpp ci man. foofu day génnee nag ba ci jamaal ca nag ci ak mat jamaal du ma. nga bayi pun tak, dara ndax suñ tàllu moom lépp feeñ ba jeex jalaal ji feeñ ba jeex lépp di leen kon da daan génn te da daan génn te du mat ay foofu la ku fi ñëw dogal lees na la ci as ab dog bu ni leen di jënd si jamono waral nga ñu dogal la ab dog ci nga li ngay tax lu ragal ndax li ngay bëgg léegi tax lu sopp ko yaakaar ko ndax mooy jamaal sëñ Tuubaa ñun ñëpp dog lañu yor ba ci Moustapha góoma de li tax nag bii yoon hmm. sëñ Saliou fan lal yërmande ju kenn mën ta xeex mooy jamaal bàyyeetul dog daa mat barke sëñ Tuubaa xanaa xamoo ni jamaal ku teg suuf dogit doo texe déedéet boo gisee ñu ne yowmal xiyaam balaa kenn dem àddina gis yàlla yàlla jamaalam yépp da koy garde toog ku fa jaar xool ko di bég di fekk jëma jana ndax loola koo gis tege ibnu arabi nee na bu nu wanoon jalaalam jo kum dugal sawara doo doo tàng ñu ko lu tax mu ne jalaal jaa gën a tàng sawara foofu ndax ci jalaal la sàcc sawara xëy yàlla nee na bu doon loo ko jaraar ku dugg sawara climatiseur séeréer mooy gën a moo koy tane ci yow moo koy gën a mooy gën a climatiseur bu boobaa sawara bu gën a sedd ci lu tax jaraar dañu jógee xool ndax tàngooru jaraar moo sàkk sawara te biir la ko sàkk boobu doole nee na li tax ñuy dugg àjjana te duñ yëg neexi ma te bu ñuy dugg yi kañ kañ ñuy fekk ci li ko indi mooy jamaal la te lu ne la ko sàkk boobu doole moo tax neex te gis yàlla ëpp te ku gis jamaal complet nga la gis dem àjjana ku la xam dem waaye dégg nañ la waaye demal feeñal yéen feeñal képp ku jóg rek yow am wéru yàlla feeñal mbaa yow defi jattaa ko xàll yoon yu xàll def yi def xam nga man àdduna bi fi mu ne kenn mënu ko fi Sall yi aussi daan def loolu loolu ko ji waaw eh sëñ Sall mooy bëggoon nañu ko jàngal ci biñ koy gis mu wax moo ko wax lu mu a a nu ñaar yàlla wet gi ñu feeñal ci jabaram ak wet gi ñu feeñal ci jabaram bul defe ne ñaari jëmm ñu kutte déedéet su nga yàlla wax lay wan ci jalaal ci jooja ma lay jaa nga ca biiram daf la daraaram ki seen beccu feeñoonu feeñal fii lu mu dul ko la ko def fii feeñal ko fii suñu taw féex rek ñu ñu dajeeg ñu koy feeñal moo tax dafa góorgóorlu de ñun moom nan moom ñu daal di leen dugg ko loolu li ma la wax naa ko jël moom bi moom ñoo koy def te loolu laa ma la wax daal mooy ñoo koy def. Serigne Saliou Mbacké sang bi Serigne Saliou Mbacké sang bi Serigne Saliou Mbacké sang bi Serigne Saliou Mbacké sang bi Sëriñ Saliou Mbacké sang bi Sëriñ Saliou Mbacké sang bi Sëriñ Saliou Mbacké sang bi Sëriñ Saliou Mbacké sang bi Sëriñ Saliou Mbacké sang bi Sëriñ Saliou Mbacké sang bi Sëriñ Saliou Mbacké sang bi Serigne Saliou Mbacké sang bi Serigne Saliou Mbacké sang bi Serigne Saliou Mbacké sang bi Serigne Saliou Mbacké sang bi Serigne Saliou Mbacké sang bi Serigne Saliou Mbacké sang bi jaajëfe Mbàkke Sëriñ Saaliw Mbàkke sang bi jaajëfe Mbàkke Sëriñ Saaliw Mbàkke sang bi jaajëfe Mbàkke Sëriñ Saaliw Mbàkke sang bi jaajëfe Mbàkke Sëriñ Saaliw Mbàkke sang bi jaajëfe Mbàkke Sëriñ Saaliw Mbàkke sang bi jaajëfe Mbàkke